ñu mën koy saafara ci nu mu gën a gaawee wala lu ko mooy at wi ñëw ci wàllu njàng mi dina tar lool ñu teewlu ko mbas mi nag dañ jàpp ni tey mënul empêcher ñun ñëpp liggéey lu ñu war a liggéey mbas mi aussi warul mun empêcher léegi gouvernement au Sénégal mu xool naka lay taseeg organisation syndicale yi yu G7 xool accord yu ñu xaatim ak ñoom lan lañ ci def lan lañ ci defagul et dans quelles conditions dañ koy mën a def parce que nag loolu bu amul gis nga année scolaire 2021 2022 dina nekk année bu jafe te loolu il faut que gouvernement bi xam ko ñu profité ci vacances yi waxtaan ak organisation syndicale yi régler question yi nga xam ne ñoo tege sur la table ñu desandi ba léegi ci yooyu lekk euh, résultat waaye bi yoon dem ci biir réew mi rawatina ca lycée Balla Moussa Daffé ca commune bu Sédhiou fafe nag ci résultat jury 1567 euh, lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent ci ay at mi la ñu daal di wàññi d'office euh, juróom-ñeenti juróom-ñeenti fukki yeeg ñaar yëpp daanaka ay second tour la ñu dem lu toll kon ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñett candidat ñoom ñoo composé ci série L2 S2 ak S1 na Ibrahima Diallo moo ñu euh, teewal wala sax euh, jox na euh, micro bi ki nga xam ne moo di président jury ba ñu teewlu ko. ñu xayma résultat yi de manière général dañu amoon si S1 ñaari candidat ñaari candidat yëpp am nañu doom mooy 100 pour cent de réussite au niveau de s ñu xoolee si série S2 amoon nañ juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti candidat fukk ak am nañu d'office ak ñaar fukk ak juróom ñoo admissible second tour moom mooy joxe taux bu toll ni 51 virgule 11 pour cent euh, am nañ aussi euh, série L2 amoon nañu 308 candidats si ñooñu fukk ak juróom-ñett ñoo am d'office ak euh, juróom juróom benn fukk ak juróom ñoo admissible loolu mooy yóbbu bu taux bi si ñaar fukk ak juróom-benn euh, virgule quatre-vingt-quinze pour cent mu ngi noonu Abdoulaye Mbow euh, seetlu gi benn la résultat yi soxal baccalauréat yi moom euh, lii xeeñ neexagul. waaw lii xeeñ neexagul euh, c' est c' est à l' parce que CFEE bi tam am na dix points de pourcentage yoo xam ne nemmeeku nañu nuyu nii daanu am na fa si li nga xam ne moo di éléve yi. Mhm. waaye bac daaw wax nañu baraawoo waaye ren gis nañu ni résultat yi dese naa baax waaye Saourou Sène nu mu ko expliqué effectivement noonu la. Mhm. taux d' encadrement bi amoon daaw par rapport classe examen yi ak classe intermédiaire mhm. defe naa ne ren. demeewut noonu te daaw itam ak lu mun mën di mënti am wax nañu ni si correction itam corona yërmande duggoon na ca donc si loolu yëpp bu ñu ko jëlee dëxañ ko si effectivement moo taxoon daaw résultat yi gën a baax ren par rapport ak li nga xam ne moo di examen yu fi yu fi jàll ñi ngi xaar BFM est-ce que BFM itam du du am euh, li nga xam ne moo di pourcentage bi gën a faible par rapport ak daaw moom la ñu am yaakaar do gannaaw CFA bi ba ba yegg si si bac bi waaye li mën a am rek moo di li mu wax moo moo am solo mooy euh, grandes vacances si nekk une période sabbatique hmm. boo xam ne dañ si war a indi waxtaan ngir anticiper si lépp li nga xam ne moo di jafe bu bu laal système éducatif sénégalais ngir ñu mun si andi ay saafara laata ñuy dugg si jafe hmm. ba nga xam ne gërëw du am débrayage du te élèves dañu mën a jàng jàng gu leer par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy yaakaaraat amaat taux examen yoo xam ne yoo gën a élevé la par rapport ak ren ji xaaj sa njàngat ci résultat yi ak kaddu yi Saourou Sène mi woo état bi mu daal di satisfaire seen ay revendication wala lu ko may at wi ñëw ci wàllu njàng yi moom dina tar boole ci am nañu temps et revendication yi euh, du tey du démb du barke démb. Mm-hmm. am na côté yu bëri yoo xam ni comprendre nañ ci gouvernement bi collaborer nañu dem nañu ba ñu def ay examen. Mm-hmm. mais vacances yi gudd na pour ñu waxtaan. jàngalekat yi ci ay seeni ay droit la ñu nekk nguur gi itam xëy na li ñuy laaj mooy est-ce que xaalis am na wala xaalis amul est-ce que itam trois mois yi jàngalekat yi teg comme ay charte pour waxtaan ci. Mm-hmm. est-ce que ñoom état bi dinañu am corona bi mu ngi fi benn ñu ngi waajal élection yi ñaar est-ce que daañu daañu tal sax waxtaan ak jàngalekat yi moom kay li wér tuba mooy euh, comme ni ñu ko passé njàng mu euh, année scolaire boo xam ne dafay perturbé mën nañ ko xaar parce que ñii nekk nii jiite réew mi noppi wu jamono ji ngir waxtaan ak jàngalekat yi hmm. lekkay firndeel mooy sabu seen wax na tey bu beneen syndicaliste waxee suba rek ginnaaw suba Mouhamadou Moustapha Diagne tontu leen. <laughs> cest à nguur gi position de guerre la nekk toujours moo leen gënal table de négociation et eh, li ñu leen di wocc négociation li ëpp ñoom ñoo ko négocié woon ba signé ko ba noppi. Mhm. nañ ko respecté. at wi at wi amee wala sax mbir yuy amee perturbation euh, ci bu ñu euh, respecté wul yooyu les paasan est-ce que du ñoo yokk ci xar mi karaw euh, ci résultat yi nga xam ne ñu <coughs> motivation bu jàngalekat yi amoon daaw. mooy corona yërmande bi nga doon wax defe naa. Mm-hmm. daf ci influe lu bëri. Euh, te li ko indi woon mooy daaw dañu amoon benn consensus autour du corona ñëpp ànd ak président Macky Sall ne ah vraiment nañ teg lépp suuf ñu def bloc. Mm-hmm. bi ñu defee bloc gis nga ñu yàlla dimbale. mais malheureusement dafa am ku yàq bloc bi. Ali Kala ji mooy ka yàq bloc boobu. consensus boobu ñu amoon ñu àndandoo jàpp ne vraiment ñu ngi ci yoonu dëgg ne nañ jàppale président bi mu xeex mbir mi moom moo désarçonné loolu moom moo ko désaxé désorienté ko jaxase lépp mu jur lan ñi frustré woon ak gos à droite ku nekk jëlaat sa position taxaw nekkaat en position de de guerre conséquences yi nag mu dal ci fu ne ci société bi dina dal ci médecine dal ci football dal ci jàngale dal ci lépp c'est-à-dire Mohamed angi hmm. si tool tooy boy xam nga tooy boy hmm. moo la tentamar gurul jeex reng reng reng du jaxasoo hmm. si lañu nekk malheureusement 2021 2022 les enfants vont encore en souffrir. ñu wax ci euh, leneen ci bile xibaar wax ci révision exceptionnelle list électorale yi xam ngeen ne fan ngi ni euh, ñuy euh, sampap laaj ci yeneen ci ay lank ndaara yi nga xam te ne officier d'état civil yi ñu ngi koy def ci lank ne du ñu jox ay certificat résidence yeneen ci ay nit yi nga xam ne seen ay potentiel adversaire lanu mu doon ak situation bu doy waar taxoon sax gouverneur bu Dakar addu ci ni tey nag ci ngoon daañu def ab taxaw seetlu Euh, ci boobu rek prérogative maire beeg officier état civil bi nga xam ne ñu ngi ko tibbi euh, ci code général bu collectivité territoriale bu ñu sukkandikoo euh, ci Amadou Seignan expert en décentralisation bi waxtaan ak Nanko Bakayoko wax na ne daal révision boobi laaju ñu benn yoon certificat résidence ci mairie yi dañu koy teewlu ak Nanko Bakayoko coowal joxeem certificat de résidence dem na sax ba indi tension ci yenn gox-goxaat yi lu ci mel ni Thiès ci diggante Talla Sylla ak parti Pastef bi ñu dooree révision exceptionnelle bi ñeel mbindu ci liste électorale yi maire yu ci bëree bëri ak i candidat ñu ngi def seen i kéem kàttan ngir bañ a ñàkk élection yi ñu jëm ci noonu certificat de résidence yi ñu war a jox citoyen yi nga xam ne dañoo bëgg indi coppite ci seen adresse électorale joxinu yàmmaneex lañ ci nemmeeku ci yenn communes yi te li ko waral mooy melokaanu élection yi ñu jëm bu ñu doyloo consultant en gouvernement